ba xam nga fi xam ni El Hadj Malick moo fi nekk. Mm-hmm. El Hadj Abdoulaye Niass. Cheikh Amadou Bamba ñoom bi envoyé télégramme ne leen bi jot na woor leen ñu woor woor yi jot na woor leen ñu woor yi. Sénégal mu commencé am ay mm-hmm. yi mooy tubaab bi moo moo gënoon gérer diine bi wala la moo fi yàq mag ñi nekkee laa wax. mais fii problème bu ñaari ñaari ñaari côté jafe-jafe bu que responsabilité moo moo manqué kon. waaw man dama gis ne dafa am lenn yoo xam ne xeexu mag ñi la woon waaye mujjul jëm mujjuñu ko jëmmal muy xeexu am benn conseil islamique supérieur. Mhm. ni mag ñi. bi sa argument yëpp bu nekkoon ne Serigne Touba déggal na tubaab bi si point boobu kenn du ko déporté su nekkoon tubaab yi ñooy jox sëñ bi ndigal dañuy jox télégraphe sëñ bi woo woor baa mu woori ah wala mu korité

parce que xam ce système de communication loolu la dang koy def chaque fois ni ngay communiquer ni ngay ni ngay duggé ci ben affaire ni ngay entamer ben affaire xam après ni ngay taxawé kon loolu yëpp comprendre communication bo xam dañ koy yàgg top ci yow te ce propos yi nek lo xam dafa tëb rek vingt noonu ndax bo togué di wax né touba bi biñ fi nekkee yow loolu nga gëm parce que sa ngëm-ngëm la né touba bi ñoy doon gérer islam bi di joxé ordre ñu ki loolu musta am ci kër seigne Touba kër seigne Touba. ndigal la fa dox mooy séntu weer gis ko woor séntu weer gis ko wori noonu la mës di dem tey it si beneen côté kuy wax ak yow si xel li ngay wax ne télégraphe boobu communication li mu demee woon gox yi takkaloo wutoon noonu si Sénégal ba nga xam ne ku si nekk ñi dañ doon woor tey ñi woor suba ñi woor gannaaw suba parce que ku nekk mën na gis weer wi mais information bi du nekkoon ni mu doon partagé ba ku nekk mën a xam ne dëkk sàngam woor nañ dëkk sàngam nañu woor parce que différence de distance la woon ak moyen de problème de manque de communication dafa am loo xam ne xel da ko jàppul si boo koy wax dafa am loo xam ne xam lu ma la euh, boo koy wax da nga koy ak ay dof ay ñu amul xel ñu dul xalaat waaye boo koy wax ak ñoo xam ne ëppoo leen xel gënoo leen a jàng dàqoo leen a xalaat dàqoo leen a def analyse ba pare ëlbatikuwaat di wax seen kilifa loo di wax loo xam ne dara wóoru la si te tey ji amoo benn preuve bu dee da am benn preuve si télégraphe yooyu génnee ko nga am benn preuve boo xam ne yónnee nañ ko Sénégal ba ba Cheikh Ahmadoul Khadim wala yoonu Murit wala sëñ Touba si boppam korité basé wu si loolu dafa am ay propos yoo xam ne boo ko yëkkati day mel ni insulte saaga la day mel am na propos yoo xam ne boo ko yëkkati di jëmale si ay nit dafa ne da yab nit ñooñu am na propos yoo xam ne boo koy jëmale si ay nit ñoo xam ne gënoo leen a jàng gënoo leen a xam. gënoo leen a xam li xew gënoo leen a am accès si archive yi ah ba pare nga bëgg toog di ko confirmer te teg ko si ay fen kese kese kese ak lu nekkul dëgg yab ñooñu la te loolu dafa war a arrêté il faut que tu arrêtes il faut que tu arrêtes am na yoo xam